ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen kaay gi nag nee na colonel Souleymane Kandé mi nga xamante ni moom la Rewmi Quotidien defoon am de l'année 2021 Souleymane Kandé moomee jamono joojee na commandant de la zone numéro 5 la woon ca Casamance tey jii nag moom Souleymane Kandé moomee maanaam moom la ñu daal di nommé tabbu ko def ko général nee ma chef d'état-major de l'armée de terre yéen kaay gi nag nee na histoire jox na dëgg jury bi nga xamante ni ñoo tànnoon Souleymane Kandé def ko am de l'année ci atum 2021 loolee nag li muy firndee la mooy vision bi nga xamante ni réew mi quotidien am na ko ak nag jury bi nga ni ñoo ko tànnoon def ko am dala ne ca 2021 ndax nag boobee colonel Souleymane Kandé ma ne la gis nga commandant de la zone numéro 5 la woon jamono ji nag maanaam moo nekk général chef d'état-major de l'armée de terre yéen kay gi nag nee na loolee vision la waaye nag jamono ji nga xamante ni réew mi quotidien ñoo ngi koy tànn gis na nag Souleymane Kandé mi maanaam ku courage la boobee kenn ko waaye nag jamono Souleymane Kandé mii ku rigoureux la boobee kenn gisu ko waaye nag jamono jañ koy tànn naan Souleymane Kandé patriote la jamono joojee kenn gisu ko yéene kaay gi nag ci xalim ak Assane Samb nee na ñi nga xamante ni ñooy sunu force de défense et de sécurité war nañu leen a jaajëfal bu baax a baax war leen a remercier ndax nag Sénégal ma ne la gis nga gis nga Sénégal ba léegi coup d'état amu fi nañu nag sant yàlla te laal bant waaye nag ñi nga xamante ni ñooy sunu force de défense et de sécurité ma ne la gis nga ci àdduna bi yëpp dañu leen a respecté boo demee Mali fekk leen fa waaye tamit boo demee RDC fekk leen fa boo demee République centrale Afrique fekk leen fa boo demee Darfour fekk leen fa ba Soudan du Sud yéen kay gi de la te mooy bàyyi mbir moomee wax ci Macky Sall mi nga xam ne politique la nekkee ci réew mi ndax ñetti conseil des ministres yi nga xamante ni moom la ñuy kenn ma ne la gis nga Macky Sall jël na waa APR ñu bare bare bare bare daal leen di nag ci ay bopp société nationale ñii nag mu daal leen def PCA ma ne la président conseil d'administration Mbadou Sall mi dafay waajal ñetteelu candidature yéen kay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall daal gis nga tàngal ceeb la Macky Sall defa ndax nag ñi nga xam ne ñoom la dàqoon ñooñee la indiwaat lu bees nag munoo koo def ak i màggata yéen kaay gi di source nee na lu doy waar doy waar moo xew ci hôpital Magatte Lô ba ca Linguère ndax nag fan yi ñu génn déggoon ngeen accident bi nga xam ne moom lañ doon wax diggante Linguère ak Matam ba am lu toll si ñett ñoo xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan mën na lay gis nga ñi nga xam ne ñoo amoon ay gaañu-gaañu yu métte métte ñu jëleen yóbbu leen ci hôpital Magatte Lô ba ca toog nañ fa ñaari fan yoo xamante ni kenn loolu ndax hôpital ba ci boppam ma ne la moo amutoon ab scanner opital ba hôpital Magatte Lô ba ci Linguère ma ne la amutoon ab scanner moo tax ñi nga xamante ne ñoo amoon ay gaañu-gaañu ma ne la ñaari fan kenn laalu leen yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaara naan ñu at mu jot ñu naan ñu waaw budget bi yokku na budget bi yokku na at mu jot ñu naan ñu waaw budget bi yokku na waaye nag amul benn yoon boo xamante ni feeñ na ci askanu Sénégal ndax ma ne la gis nga at muñ waxee na bi yokku na at moomee la askanu Sénégal mën a gën a dund ay jafe-jafe jafe-jafe économiste bii di Maysa Babou nee na nag budget bi nga xamante ni moom la ñu amee orientation stratégique yu am solo moom lañ ci war a defa waaye nag ñun sunu budget bi lépp dañu koy jël def ko ay salaire ak wàllum fonctionnement de l'État noonee nag ana nan la askan bi mën a gisee seen bopp ci budget bi économiste bi mooy wax di Maysa Babou waaye nag beneen économiste di Mor Gassamo moom nag nee na mën na la budget bi xaalis bu baree bari dañ ko see war def ko ci investissement moo gën xaalis bu ñu di ko def ay fonctionnement de l'État ah yéene kaay gi ñu fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na budget six mille quatre cent milliards yii li tax Macky Sall indi ko mooy jël xaalis bi pasar pasaree ko nee ma ko ngir waajal lan ngir waajal ñetteelu candidature waxi Mamadou Lamine Diallo la yéene kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu oto yi nga xamante ne nguurug Sénégal dañ ko doon jëndal ñi nga xam ne ñooy ministre yi a cabinet présidentiel Macky ma nee na loolee na dakk léegi amutut benn ministre bu ñuy jëndal oto ma ne la Macky Sall oto jox ko gouvernement bi ministre yi ak cabinet présidentiel dogal boobee la Macky Sall jël yéen a kaay gi di 24 heures xëy dañu xibaar naan ñu ba léegi njaw ma ngay wéy di desu xambin ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyee yi seeni liggéeykat ba léegi ñoo ngi ciy jafe-jafe ñoo ngi ci guddi gu bët séddiku la ndax nag toog nañ lu toll si ñaari fan yoo xam ne moom la ñuy gerawa ndax nag ñoom nee nañu nguur gi dafay layaam layaamal yéen a kaay gi di mer ñu ba maara day taale ma ne la gis nga gis nga liggéeykatu RTS yi Racine Talla la ñu yóbbu ca OFNAC ndax dañoo jàpp ne kër gii nga xamante ni mooy RTS ni mu ko yoree am na ay les suxula yéene kaay gi du l'Observateur nee na musiba ma bu kumba am na ca garage bu boo maraîcher ndax nag foofee dafa am benn policier boo xam ne moom lañ fa tuumaal lu jëm ci wàllum viol ci benn xale bu jigéen boo xam ne mineur la fukki at ak juróom benn la ama yéene kaay di réew mi ko di jeexee di ñu xibaar naan ñu mi ñu tuuma lool lu jëm ci wàllum viol ak wàllum dóoraate ba gaañee Kalifone Sall moomee nag démb atte nañu ko te nañ ko lu toll ci benn weer boo xam ne daf koy tëdd ak loo xam ne war na koo jox xale bu jigéen bi toll ci cinq cent mille francs yéene kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Sa Thiès ak Reug Reug Sa Thiès moo ngi koy waajale ndax ci école de lutte Balla Gaye fa la koy waajalee ca géej waaye yéene kaay gi nag di sunu làmb nee na Boy Niang 2 ak Balla Gaye numéro 2 bi ñu defee face à face li nga xamante ni ñu baree bari nemmeeku nañ ko